Ndafa. naam. apprenti laa bëgg. looy liggéey. yow waxal rek loo bëgg. réew mi am na liggéey. liggéey amu fi. saa su dee nga liggéey nga wax ma su bëggoon ma xool sa moroom su veux travailler. journée ñaata ngay fayee ko. juróom <laughs> bu jaay. gerte ak lan. tigga dëgg. célibataire yi lu ñuy reere. wala lan. laax. mari yi nag lu ñuy reere. mbaxal. daxin ko lekk. waxul dëgg. <laughs> naar yu ne ñaar sa carotte nga jaayal ma dinañ ko def ci ande sama ñun suñu ci